lamb la de waaw ah, mooy Malick am na coow de ak day génn ak sëñ Tuubaa génn mooy wér na bu yàgg idi waxa ah waa léegi nguur day jox sargal de ay message xoo bon ah jéem doon lii sama gerte yi jàppante parce que Malika loolu dafa am doomu Malika toog combat loolu moom amagoo na leer Thank you. combat bi dox spécial baa ngi noonu dox ci diggante Baye Tapha Tine ak Canta bu Yoff Canta bu Yoff moo ñu féete à bul ma bul ma bu zone bi Baye Tapha Tine moo ngem boo mooso bu gris bi moom la ñu jàkkaarloo léegi. waaye Tapha Tine ak Canta bu Yoff waaye Tapha door na léegi eh Canta atul Canta atul waaye Tapha Tine nga seeral la pataake ba eh Canta door na ko léegi jàppante nanu luy xew lu mu ko bëgg a def waaye Tapha jin na ko mu bañ waaye Tapha Tine jin na léegi cata waaye dañoo ànd wëndeelu jaax taxawaat waaye Tapha Tine ak canta bu yoof canta nga dóor dalay daan dalay daan dalay daan daan na la laay lay la laa canta daan na ko bu rëy ma ngay capi capi bàyyi ko ma ngay cëppi cëppi pareegul ma ngay daw di ñëw ma ngay daw di ñëw ku ci nekk ak sa feem kaay kayi kayi ma ngay njuug ma ngay njuug waaw waaw doon doxul jàmm xale bàyyi noonu bàyyi ko mu ñëw benn demaatal ñaar defaatal ñett defaatal tourné na waaw ko jël bu rëy waaye Tapha Tine daan na bu ko bett waay di daw barki Serigne Touba ba ma daw dafa yàgg Lamine. Lamine. man lamb dama si am wàll. barke Serigne Saliou Mbacké. kii maa am man. mooy sama sept combat ay armée bu ngeel dama daan ay seconde barki Serigne Saliou Mbacké yaa nañ bàyyi daw amul dama ko daan yàggul maa ko daan fii daaw mbëri nañ ma jël. mais li nga bëggoon moom la man dama mën bëree. man dama mën bëree barke Serigne Sall dama mën bëree. gars yi xamaguñ ma nag Lamine Lamine ngir yàlla ñëwal seet si ma yokk barke Serigne Sall Mbacke lamb dama si am jër. man la xale yàgg lay fekk ba sa plateau. armé eh, eh, invité nga ko mu ne amul def amul defet benn defet la am il faut que daan barke Serigne Sall Mbacke. maa ko daan ay bamaar xam nga instant kan laa xaar barki Serigne Saliou Mbacké le 6 le 6 la ñuy xaar am na ñu nekk si Pikine Pikine dama tegoon sama seize daw laaw dañoo daw laaw maa ngi ñëwaat moom man seize baa foofu barki Serigne Saliou Mbacké